salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu mbokk yi ñu ngi nuyu di leen ziara bu baax baax di leen ñaana yàlla baax te di sàkku ngeen ñaanal na wàllu xëy bi yëpp incha allah di ñaan yàlla màggal bi nga xam ni moom la ñu jóge yàlla na yàlla nangu lépp lu ñu fay def ci ñaan ak ci zikir ak ci lépp di ñaanal xalifa bi tamit suñ mun taxaa yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér ak wiir la yàlla dafa ko ko ba mission bi nga xam ne moom la sumb ci diina ji rawat na ci kër maam yàlla eggale ko ak njaboot gi yëpp euh, juste benn kii bu ndaw rek parce que gis nañu macha allah fan yi yoon yi dina xaaw a kii saturé tuuti ndax fu ñëpp di dem day xaaw faa mu xat mais yàlla na yàlla yaatal xol yi ak tali ba jàmm ak salaam am ci ñu dem ci maagal jàmm bàyyi fi jàmm fekk fa jàmm jiwaat foofu ci jàmm ñëwaat fi fekk fi jàmm yàlla ci réew mi jàmm def ko ci réew bépp jullit waaye du soññaat suñ bopp bu baax rawatina suñu mbokk chauffeur yi parce que maa ngi jot benn vidéo boo xam ni di ngeen gis si biir vidéo di ngeen ko gis si biir euh, incha allah ci biir vidéo bi ba ko seetaanee di ngeen ko gis chauffeur bi day nelaw ba après éléments yi ñoo koy fëgg di ko yee éléments yi ñoo koy fëgg di yee pour mu yeew ndax mu ngi nelaw ba yenn oto ci kanam di avancé te moom mënul avancé mujj bi client yi ñoo koy fëgg naa ko chauffeur chauffeur chauffeur chauffeur demal demal am na yoo xam ne chauffeur bi bu bu demee ba nangutul jël yenn responsabilité mooy maanaam nit ki boo demee ba mënul yaa ngi dawal gëmantu nga jàddal nga taxaw nga nelaw boo nopp nelawee ba dal nga taalaat soto dem parce que bëri na accident yi am ustuwaak yéen yi am ñu naan oto bi daa màgget oto bi laa laal oto bi du kees oto bi màgget mais dafay causé ci ñaari ñii muy chauffeur bi ak yi pourquoi ci ñaan ñi parce que tey jii chauffeur bi bu woon yaa ngi nelaw amatoo yenn euh, doole yi ngay nelawee amatoo yenn doole pour dawal foofu waratoo jël volant di ko dawal waaw war nga nelaw ba doyal nga doog a dawal ci côté chauffeur bi bi ci des mooy côté client bi man sama yewee ma gis ne yaa ngi nelaw mënatoo ma wax la arrêté nga taxaw fenn ba noppalu ko nga dawalaat nga bañ. gendarme ma njëkk a romb wala policier ma njëkk a romb ou soit euh, femme de tenue ou soit euh, homme de tenue ma njëkk a romb ko signaler man client bi naa ne eh, ah, mu ngi nelaw depuis ba ñu muy yebee ba léegi wax li nga wax li muy def yëpp ci oto bi su ko defee ñoom dinañ jël seen propre responsabilité su ko mënul yow nga wàcc xool xaar benn oto parce que oto yi bëri nañ fi macha allah mais souvent yéen accident yu bëri ñoo koy causé chauffeur bi wala client yi parce que suñu force de l'ordre yi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan mais dafa am société il faut que ñëpp bokk ku nekk am loo ci liggéey mais Sénégal dafa nekk réew moo xam ni tey jii ba nekkee ci kaar bi sax chauffeur bi dina la wala nag suñu noonu di def nag suñu euh, boo kenn ci ñi nga xam ne ñoo ñoo war a jubbanti chauffeur bi boo ko boolee waa kaar bi ne lu seytaane la boo ko boolee ñu ne ak kii léeg la wala bu defee fët boo xam ne dafa jar nga ko bu juste bu am na loi bi taxawee ne chauffeur kan moo tooñ laaj laaj diw sama chauffeur moo tooñ ñu ne war a woon wax léegi ñu baax na bu baax ñu maytu nañu maytu nañu maytu tali bi yàlla na ci yàlla def jàmm def ko ci xol def ko ci oto def ko def ko ñëpp ñu dem ci jàmm ak salaam màggal ci jàmm salaam waaw kilifa diine yi ñu ngi def seen wareef nu mu waree population bi tamit yaakaar naa war ngeen def seen wareef nu mu waree rawatina chauffeur yi rawatina client yi rawatina ñu ngi ñaan yàlla ci barke Seexu Xadim màggal bi ngeen dem ci jàmm salaam ñëw ci jàmb ak salaam mais bu ñuy bu ñuy sàggane suñu bopp mbaa suñu suñu suñu làmmiñ ba duñu bëgg a kaas yéen ñu war après dont dañuy xaar buñ ko defee dañuy dal suñu kaw naan ñu waaw lii ak léeg la mais ni ki yow en tant que citoyen defal sa responsabilité li la war def ko loolu laa ne woon naa jàll ci message parce que lii dafa ñaawlu naa ko fu ñaawlu yem waaw en tant que euh, nit en tant que doomu adama en tant que jullit en tant que citoyen en tant que en tant que salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mal eh, bëgg eh, leen ko ah! eh. sabar mal eh, sabar ay bëgg leen ko sabar eh. ay